salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi fii ci Daaru Koso dëkkub Serigne Mahmadan Mbacke moom Cheikh Ibrahima Fati euh, ñu fi amal bisub euh, cant ak màggal euh, mbokki taalibe yi ñëpp ñëw fi di ànd ak ñoom bis bi di ñaanal Serigne Maxtaar Mbacke moom Serigne Mahmadan di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te dolli ko ak wér. di bis bu am am solo kon xam na ne euh, Cheikh Ibrahima faati euh, ca njàmbaar ga ak ca doyloo sëriñ bu mag bi euh, ak yitte ju ji nga xam ne amoon na ko ci lislaam amoon ko ci defaraate dëkk bi ci firnde yooyu la bokk waaw moo ko sanc gannaaw bi mu sancee Darou Mouhty jot na ndigalul sëñ Touba sanc dëkk bii di koso koso nag man baawul ulum la wa tabaru mbooleem doomi sëriñ bu mag bi mbooleem njabootu maam Thierno Birahim gi ñëpp ñëw nañ fi Euh, barab bu am histoire la euh, ci yoonu murit euh, sëriñ Abdou Hakim Mbakke sëriñ Isaaxa Mbakke sëriñ Basiru Antañang sëriñ Alaaji Mbakke bari nañu baree baree baree bari ci borom xam-xam yi ci yoonu murit fii lañu ñu jàngee alxuraanul karim ak lenn ci xam-xam ndax maam Thierno it da ngeen xam ne sëriñ mag bi daf ko dénkoon njaboot gi ci mu di leen yar te ku xam na ne yar tërbiya euh, ma faaw mu ànd ak xam-xam euh, sëñ Mahmadan mi nga xam ne it moom la ko euh, maam Thierno dexalee woon it mu mate ko sëkk taxawal ko fi liggéey bu amam solo ba tey ak njabootam di àggale loolu tax na ba at mu jot mboolem taalibe yi ak soppe yi danañ jóge fu ne ci àdduna ñëw fii ngir suuxat ak gën a fésal njàngale mu am solo moomu nga xam ne euh, sëriñ Mahmadan daana ko fi taxawee jabootam bi ñoom sëñ Mamoor Koso booleem sëñ Mamoor euh, moom sëñ Mahmadan Koso ñooñu ñëpp liggéey nañ fii ci lislaam liggéey bu rëy boo xam ne histoire du ko fàtte. waa kon mbokk yi ñu topp ñu incha allah ñu dugg ci mboolem euh, barab yi liggéeyukaay yeeg waañ yeeg fépp incha allah ngir ñu wéyale liggéey bi. mboolem ñi ànd ak Tawfekh Production ñu ànd ak ñun ci bis Yudhi Khayra waaw mbokk yi euh, ba tey ñu ngi fii ci Daaru Koso ci bis bu tedd bi di ànd ak mbokki taalibe yi ci barab yi sell yu sell yi nga xam ne ay barabi ziar la euh, sëñ Maxtaar euh, fii ñu taxaw nii mooy fan ci boo ñu ci dee leeral ak mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ànd ak Tawfekh Production. Ah, jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu ma leen nuyoo ziare leen ñoo ngi leen di dalal bu baax a baax yéen waa Tawfekh Production ci dëkk bu sell bi di Daaru Koso di dëkk boo xamante ne dëkk. maam Thierno bu Fati la ñoo ngi leen fi dalal jàmm bu baax a baax a baax fii daal mooy daaru Koso di daaray borom daaral Muxti. fii ñu taxaw nii am na barab bu sell bu ñu taxaw nii yaakaar naa fii mooy barab boo xam ne euh, maam Thierno Ibrahima fi la féete woon ñu koy woowee am néegam ci mën a ah, jërëjëf fii moom mooy barab bi nga xamante ni borom daaral Muxti mi nga xamante ni moo moomoon daaral Koso ab néeg la woon boo xamante ni moom fi la doon deyaaleeg suñu borom fi la doon jaamoo yàlla. suñ borom dox ba jamono dox ñu xaw a soppi barab bi def ko nii waaye jumtukaay yi mu fi yoroon yëpp moom ba tey mi ngi ci bi waaye xalifa sëñ Mahmoudan di sëriñ Mamor moom moo ko liggéey woon liggéey bi di ñaan suñ borom taas ñu ci barkeem te yërëm ko te defal ko njëggal. Euh, daa mel ne ci barab bi nemmeeku nañ fi lu mel ne ab coffre boo xam ne euh, maam Thierno Birahim moo ko moomoon euh, gis nañ fi it ab lal boo xam ne ci ay bagages la bokkoon ak ay. téere am ak ay jumtukaay yoo xam ne jumtukaay boo ci jël rek am na lu muy misaal yaakaar naa Copperfort moom euh, li muy misaal bari de mel na ne ko xam ku ne xam ko ci nangoo woon a liggéey euh, ak ñaq jëriñ. waaw jërëjëf comme ni nga ko waxee rek maam Thierno moom jàmbaar la joo xamante ni Serigne Touba moo ko defar euh, defoon ko muy ko xam day liggéey boole ko di jaamu yàlla di doon koo xamante ni yaakaar naa ci Sénégal kenn dootu ko laaj. boo xamante ni bay ak liggéey la boole woon moo waral jamonoy coffre-fort ba nga wax su musaan dem ba jamono xaw naqari lu mel ni état bi sax dañ daal ñëw ci ñoom di ko diis lu mel ni ay soxla te lee rek la ko daan saafara kon lee ci ay dencukaayam ci la bokkoon mu ngi fii ci barab bi daal ci gàttal daal barab bi barab la boo xamante ni lépp borom Darou Mouhty moom moo fi nekk jàpp na ni waxuma la ngir ñëw teewe si bi rek waaye ñëw ci biir barab bi ñaan fi euh, xeeñtu dox yi ni maam Thierno mi nga xamante moom moo woon barab bi rek loolu rey rëy la ci bis bi. ñëw sëñ lay sant bu baax di la gërëm Tawfekh Production muy dikk ci baax a baax. Euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñoo ngi fi ci euh, Daaru Koso di dem ci barabu ziyaar yi ak euh, mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo fi teew ak sëriñ si wóolëre yi danañ dem ci barab yëpp tàllal leen suñu micro ñu sànni ay kàddu yi nekk ay kàddu ngërëm ak sant yi nekk ay kàddu yoo xam ne ay kàddu kóllëre la Euh, tey nag euh, ñu ngi fii ci barab boo xam ne euh, sëriñ Mor Talla Mbacké muy sëñ Mor Talla moom sëñ Moustapha May ñu di ko gën koo xam ci loolu mu feggoo ak magam sëriñ Khadim Mbacké ibnu sëriñ Bassirou Mor yaakaar naa ñuy ay wëllëre di ay mbokk ñu fekk leen ci kër gi sëñ Mor Talla Mbacké gannaaw bu la Tawfekh Production nuyoo di la sant di la gërëm fekk nañ la ci barab bu tedd nga teew fi teewaay bu amam solo ñu lay tàllal suñu micro ah, nga wax ñu ana moo sabab sa teewaay fii ci barab bi. waaw kay asalaamaaleykum wa rahmatullah taala yi mbokk jullit yi ñoo ngi leen di sant ci jataay bi nga xam ne yàlla dogal ñu bokk ko teewe li sabab si nag mooy liggéeyal yàlla ak sëriñ Tuubaa ak borom daaru di moo Mahmoudan Mbacké mi nga xam ne barab bi barab bu sell la bu kawee boo xam ne nii dafi daa jaamoo yàlla di liggéeyal yàlla ak yonante bi ak sëriñ bi muy jëmm joo xam ne nag moom njabootu Sëriñ Tuubaa ju bari wàcc nañ ci dëkk bi ngir baaxam aku sellam aku taalibeem mu nekkoon fi nag di fi liggéeyal yàlla ak sëriñ bi ci mbooloo moo xam ne ni mu takkoo takku lañ nga xam ne bari nag ñoo xam ne jaar nañ fi ba am nga ngërëmul yàlla ci ci ngir jëmmam ja ngir teete gum leen doon teete ci yoonu yàlla sañ sëñ euh, euh, sëñ Mahamadan dafa mel ne fu ñu ko tuddee rek xel yëpp dana jëm ci xam-xam ak jàngale ak yar dafa mel ne dafa euh, li ëpp ci ak dundam ci dafa dafa aju woon ci wàllu jàngal nit ñi xam-xam ak wàllu yar ci wàllu yaru lislaam loolu dafa mel ne yaa ngi koy tàmbalee di feeñal ci say ci say kàddu loolu ana lan mooy cosaanu loolu ci maam Thierno moo ko santoon mu di ko def wala looñ ci mën a wax. waaw bokk na ci nag moom ci ndigalul waajuram te Cheikh moo ko mu ñëw ci barab doon fi liggéeyal yàlla di di bay di jàngale ñeme coono barab bu naqari la woon nag ba mu fi soog a ñëw nga xam ne bari na sax ay kilifaam yu fu jëkk jaar yoo xam ni mënuñu fee tax ndax mënuñu fee toog ndax méttiwaayu barab bi kon nag moom mu nekkoon di muñ ba ba tey yàlla dogal barab bi mel nii nga xam ne moom ni barab yëpp mel ci ci ci ci ay xéewale ci ci lu ne am na fi ci lu ci lu baax ngir ngir ak baaxam ak ak liggéeyam moo waral sabab soosu. macha macha allah bu ñuy wax euh, euh, jëm ci wàllu wóllëre euh, gi nga xam ne moo dox sa diggante ak njabootam ana yan kàddu nga ci sànni. waaw nag moom liñ ci gën a fësal mooy sëñ Moxtaar mi nga xam ne yàlla dogal na moo nekk ci xilaafa gi. yàlla dogal na naka jekk ci moom lañ daa dal ba mu ba ba ba mu fiy nekk ba tey bañ bañ xamee ba tey ay at yu bare bare la yoo xam ne kilifaam sëñ Mamour mi ngi foon waaye teew nag buñ mësaa ñëw ba siyaare sëñ Mamour foofa la ñuy yóbbu ñu dal fa waaw moo xam mu nekk nag koo xam ne ne moom it eh, ci tànki baayam rek laaw ci ci jaamu yàlla ak liggéey ak jàng ak jàngale eh, ci moom it ci la sax ak ci liggéey ci ak taalibe yi moom it ci loolu rek la nekk moom daal fii daal mooy dëkk la dëkk boo xam ni moom ci jaamu yàlla ak liggéey liggéeyal sëriñ bi moom rek lañ nga xamee ak ja ak jàng. kon xam naa ne taw feex Production moo ngi lay sant bu baax a baax te di la gërëm sa kàddu yu mujj. Euh, ñi sant nag mbooloo mi suñ xaadim nga xam ne moom it mooy suñ kilifa moom lañ àndal mu jiite waa kër gi lépp njabootam lañ moom la moom ñu ngi ñu ngi jël ñu ngi fi gis ñëpp suñ njaboot Cheikh na Mbacke ak suñ maam ndox na day Mbacke ñoom ñëpp ak maam ta ñëpp suñ njabootu suñ xaadim la dañu ñu waxtu moom it wax bu màggal jotee ñu ñëw teew si ngir jàppale sëriñ bi ngir fas yéene fee sàkku ay ngeen ji tuyaaba ñaan nag suñ borom defal nu ngeen ji tuyaaba suñ borom nungu nu liggéey bu ñu fi liggéey rek suñ borom nag te yàggal fi Sëriñ Maxtaar lool mm, te yàggal fi njaboot gi yëpp rek ba ku loo yéene rek nga mën koo matali si saa yu baat yéen it ñu ngi leen di sant seen taxawaay bu rafet mm, ci seen taxawaay di ñaan seen mm, télé bi it moom it yàgg fi ta gën a yokk bu baax a baax ba li ngeen yéene ci yoon wi ngeen mën koo fayal baax baax jërëjëf jërëjëf jazakallahu xayran wasalaamaaleykum wa rahmatuhu wa barakaatuhu waaw mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci Daaru Koso ci pàkk bu sell bi euh, ñu ñëw nag euh, ci barabu sëñ Mamor Koso euh, janoo ak sëñ Maxtaar mi nga xam ne ci ay loxoom la yaroo sëñ Maxtaar gannaaw bu ñu la nuyoo ana yan kàddu nga ñuy baaxee ci sëriñ Mamor Koso ana lan nga xam ci moom ci loo ñu mën a baaxee ñu bokk ak mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ak Tawfekh Production. ah baax na jërëjëf comme li ñu mën a wax rek laaj nga nu ci jëmm ju tedd joo xamante ni jun sawar wax la. yoo xamante ni ak njàmbaaram Sénégal gépp tamit mën nañ ci teg loxo di ñaan suñu borom mu taas ñu ci barkeem te jot li ko njéggal fa mu nekk sëñ Mamor daal jàmbaar la joo xamante ni yàgguñoo moom waaye diirub lim fi nekk lim ñu daan teg lépp fu ñu dem rek royukaay la ñuy doon moom jëmm ju tedd ji nga xamante ni bi mu fi wutoo sëñ Mahamadan 1976 bi mu fi jógee jàmbaar la joo xamante ni liggéey rek la doon def ak jaamu yàlla ak teg mbooloo mi ci siraatal mustaqim loolu daal lan mënoon a seere ci eh, jëmu ju tedd jooju. sëñ Maam ko Koso euh, fu ñu ko tuddee rek euh, nit ñi danañ jëm ci yërmande ju bari ji maamoon ak euh, nekkoon ko social koo xam ne da daan dimbalewaate loolu ana lan nga ci mën a wax ko. ah jërëjëf jëmm jëmm la joo xamante ni jamono dafa toll foo xam ne dimbali nit ki ajuwut ci nga yëkkati koom rek teg ko ci loxoom mhm. dimbali nit ki mooy nga defar xolam mhm. defar ko muy royteef koo xamante ni. fu mu mën a dem rek dina fa mën a sàkk loo xamante ni loolu la ñuy wax kas bul alaal loo xamante ni dina ci mën a sukkandiku sëñ Mamour ci loolu la doon def nit la woon koo xamante ni borom xam-xam bu bari la waaye kenn mus ko woon a dégg ci lenn loo xamante ni lu muy wax la lu dul lislaam ak sharia fonk mbokk la woon dafa mel ne ci barab yi ñu doon ziar sax fekk nañu foo xam ne bind na fa ni mu bokkeek ñu baree baree baree bare baree bare ci mam yitte jooju ak rafetal ak fonk mbokk googu dafa mel ne dafa feeñoon ci dundam bu baax a waaw waaw yitte jooju moom daanaka dañ naan dañ koo jëlee ci kilifa gu tedd gi mooy sëñ Mahamadan mi fi nekkoon nga xamante ni wóllëreem la woon ak kilifa yu mag yëpp njabatuk sëriñ Tuubaa yi ba ku ci nekk sax ñu ci bari tudde na leen ay doom ku ci mel ni sëñ Muxtada ku ci su ma limee dama dul matal waaye njabatuk sëriñ Tuubaa yëpp loolu la sëñ Maamoor ñëw sos moo tax bis bi moom nii rek la mën a dem Daaru Moxti tuubaa mbokk yëpp ñëw nañ ngir fedd li si gi nga xamante ni ñoom lañ seqoon ak sëñ Maamoor ci loolu daal la sëñ Maamoor doon dox sëñ bi xam naa ne. jërëjëf jazakallaahu xayran. Euh, kon euh, bu fekkee ne dañoo jàll ci wàllu réalisation dëkk bi euh, dëkk bi dafa mel ne ku ñëw léegi xool ko da nga gis ne am na ak jéego yu amam solo yoo xam ne dox na ko wuute na lool ak koso gu yàgg ga loolu it ana ban taxawaay la ci sëñ Maamoor amoon. waaw jërëjëf loolu daanaka mbégte lay doon moo xamante ni dëkk boo xamante ni borom daaru moo ko sancoon ci ndigalul sëriñ Touba. bi fii sëñ Mamour ñëwee 1966 ji mu wutoo sëñ Mamadam xamoon na ni yombutut jamono metti woon na ah, dëkk bi neexutoon na nekk waaye ak njàmbaaram ak ak pasteefam ak dogoom ci liggéeyal sëñ Mamadam moo fi indi lii lépp 1993 bi fi courant bii ñëw yombutoon gis nga ko liggéey bi lim fan wi guddut waaye jëf ju rëy na jumaa ji nga xamante ni mibét mi nga xamante ni mu gënoon a rëy ci sëñ Mahmoudan gën koo rëy ci borom daar muy borom dëkk bi mu ngi nii def na ko ci at yu néew a néew kon kooku daal suñu doon lim ay limam mbaarem dëkk bi nga xam ñi nga xamante ni ñoo ko wër ak biir dëkk bi ay jafe-jafe ndox lañ daan am yoo xamante ni jamonoy borom daaru loon ba léegi waaye moom it ak takkoom ak xam lan mooy ndonoy sëñ Mamadane moo ko jàppale ci loolu ba xamante ni li wër dëkk bi lépp foo ci nekk ñoo dina tiwoo mu yegg fa te li ci gën a kiimtaane sëriñ si dañ koy euh, kilifa yi dañ koy wax forage bi bi mu ko bënnee koso gi ko moom moo ci mujj naan ndax yërmaane ji mu ci doomu yi mu taxoon mu ni dëkk bi ñu ko wër ñëpp na fu ne am tiwo ba noppi yaakaar naa loolu it fi la ñu fekk ñëpp naan nañ ba pare dëkk bi comme moom doog di naan ci njàpp sëñ sëñ bi loolu rek loolu loolu rek doy na loolu loolu loolu sëñ Mourtada yaakaar naa ci seere su rafet nit ku tedd ku sell ku bëri yërmande yaakaar naa euh, kàddu googu tënk na ko ku ku ku lijjanti forage bënn ko sëb dëkk mujj cee naan nga ne nañ jox tund wi ñëpp ñu naan ba pare mu doo yegg si ci man ah daal mbokk yi daal euh, suñ Mamour Kosso daal euh, wax dëgg fa yàlla yàlla na ko suñu borom fay euh, kenn mënta wax lépp waaleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilah sëñ Mortala ba tey ñoo ngi nii taxaw ak uh, sëñ Ousseynou Badiane di bilaal ci uh, jumaa ji nga xam ne mooy jumaa yi uh, Daaru Koso moom sëñ Mahmadan ah muy koo xam ne nag yaakaar naa macha allah bari na lu bëree bari loo xam ne mën na ko wax sëñ Mamor ah, sëñ sëñ Mahmadan bisimilah kon ana yan kàddu nga ñuy baax ci moom. li ma mën a wax rek ci sama tooy xol ci jëmm ji fi nekk du mën a sori ndax xam naa kër ci moom kër goo xam ne du ma ci a wax lu bari. waaye man ci li ma fekke daanan xëyee fii ànd ak sëñ Abdou Gaye ak Dan Diop booba ñooy jëwriñ ak Gora Fall ñuy dem tool nuy róoj tan daa róoj ba ineer booba mbooy mu tàng jër picc dañuy daanu seeta na moo amoon fii ci wanagu sëriñ Mahmadane su ñëwee day duyu paan jox ko mag ñi ñu bokk ko mu duy sàlla gu mag jox ko gone yi kenn ku ne am sa kubéer lii dund nañ ko tey doo am jël doo am añ doo am reer da nga yalwaan nag mbaa dëkk bi jëla ko sarax te boo dëkk bi dund ak sëñ Mahamadou man ci ñi fi mujjee ci laa bokk ndax man atum sëñ Basiru fi la ma fekk waaye sëñ Mahamadou li mu defar ci doomu aadama mënu si lim sax ci pëstéewam ak bëgg sëriñ Touba ak gëm Maam Cerno ndax dëkk bii day wax dëgg yàlla bi mu fi sanc ku ñoon da nga fi nekk ndax bari nañu fi jaar sëñ Maam Cerno sancu leen ko dañoo ñibbiwaat waaye moom mu ne ko man boo ma dimbalee naa fi nekk mu mu wéefi loo xam ne lii nekkut wax sax ku ko xamut ku ko fekkul ndax boo ko rek ak jën doomaa da warta mën a dund loolu lii sëñ Mahamadou moom fekk naa ci loolu sama xol nga dafa sori masha waa njabootu sëñ Tuubaa gi ñëpp daan nañ fi ñëw loolu daa mel ne mën nga ci seere waaw ndax euh, sëriñ Basiiru andeewoon na fi ay waaju ay ay doomam lam leen wax mooy waxuma la xam-xam ba waaye tawul bi gi nekk sëñ Mahamadou rek jar na mu yóbbu saa goone bañ jël ko lii moom sëñ Basiiru seeral na ko sëñ samay gone bañ jël taalu bi gi sëñ Mahamadan dama daa jëlee la xam bi taalu bi gi rek moom nee na jar na ko indi fi ay doomam bañ jël taalu bi gi daa jëlee la xam-xam bi loolu sëñ Basiru seera na ko sëñ Mahamadan waaw waaw waaw doomi sëñ Basiru yi ku mel ne sëñ Abdou Hakim daa xam naa ci ak ak ñeneen ak ñeneen ak am na mënu ma ko lim ma la waxoon sant naa abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot wala vidéo boo xam ne dugal a xam li nga xam ne